wax naa ne que ni jàkk yi ñu tijji tëj yëpp war nañ leen mën a tijji ndax euh, grande lu mel ni grande mosquée comme ni nga ko waxee euh, juma euh, ñëpp jullit yëpp la du pour ma sàmb du pour ma demba du pour bi tareexa wala du pour bële kon waroon nañu mën a ubbi war a mën julli te it gëm naa ni que ni suñu ubbi woon julli ñaan ñi ñu fay ñaan yàlla dina ko dina ko dégg damay wax ni que ni Sénégal chance bi ñu am mooy li nga xam ne yàlla dëxëñ na ko fi ci ñu baax ci ay kilifa yu baax kenn ku ci nekk nga xam te ni que ne tey jii mënoon nga ni bu doon yonent bi xaj na man lay doon kon ñooñu seen allahuma xajul ci mbas mi kon nag suñu fekkoon ni que ne ñoom ñëpp dañu ànd di ñaanandoo am naa yaakaar ni lii du du du waaye wala du metti maam li baax na wax na ko yàlla dina la dina nangu sa ñaan dencal la ko wala mu fay la ko leneen moo tax ma ni ñi ubbiwul woon war nañu mën a ubbi war a mën a xool nuñ ko nuñ koy organiser comme ni ko defee fii julli nañu respecté nañu euh, les ñu koy waxee gestes barrières yi respecté nañu consignes yi nga xamante ne que ni nguur gi jox nañ ko kon ñëpp war nañu mën a def loolu. nun yàlla def nu bind nun waa Ahlou Laye dañu am ay stratégie euh, te loolu defe naa ni que ni euh, xam naa xale yi sax dinañ ci ñëw parce que bëgg naa ngeen jokk ak ñu waxtaan ak ñoom muy vision 129 dafa am stratégie boo xamante ne que ni ñoom ñoo koy teg. xale yooyu muy ay xale yu góor ak xale yu jigéen ñoom la yàlla euh, jagleel ñuy organiser yu mel nii à chaque fois que ñu egsi yu mel nii compte tenu ak ak ak li nga xamante ni moo xew ci àddina ci loolu la ñuy sukkandiku pour organiser yu mel noonu parce que xam ngeen ni que ni que ni suñu xaj na bu ñu yeexee julli affluence bi dina dina bëri euh, jàmmalaay du mën a continuer mbooloo mi te bëgguñu xat xatloo bi ndax bëgg nañu respecter les les consignes loolu moo tax stratégie boobu xale yi teg ko xale yooyu nag mat nañu ñaanal bu baax ndax lu ngeen fi gis ci lu rafet rek ci lu baax ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko xalaat ñoo ko teg te ñoom xale yoo xamante ni que ni ay njabootu sëriñ bi lañu ndax ay sëtam lañu ay ay jarbaatam lañu ànd ak seen i xarit ak seen i am di jàmm nuy organiser mel ne lu ngeen fi gis ci organisation xale yooyu ñoo ko def ñooñu mat nañoo ñaanal bu baax a baax a baax.